asalaamaaleykum mbokk yi comme nu ma leen ko waxee woon ñu ngi ba tey ci tournée tibb tànk ginnaaw bi nga xamee ne wan nañ leen tali bi ñu doon wax ne ñoom moom la ñuy inauguré moom Macky Sall diggante Dabiya ak Bokki Jawe nga xam ne daanaka rang-rang la ba fi may wax ak yow nii au moment où je vous parle ba tey tali bi rang-rang la parewul depuis des années tali boobu ñu ngi koy defar parewul léegi nag damay ñëw ci pose première pierre lii xool leen pose première pierre moo tax Macky Sall jugee Ndakaaru ñëw pour teg première pierre bi xoolal euh, nee nañu centre régional de contrôle des fréquences centre régional de contrôle des fréquences xam ngeen lii lan la liggéey ARTP contrôler fréquences yi mais vraiment centre contrôle de fréquence dara war na tax président teg première pierre xaw ma ñan ñoo fi teg marché bu xonq bi mais ce qui est clair mooy lii moom xam naa ne waa Fuuta tampi la mais comme ñun ñooy waa Sénégal tampi ñun dinañ ñëw won leen exactement li nga xam ne moom la ñu def mooy pose première pierre bi alors vous pouvez en juger vous-même xool leen vraiment est-ce que lii sud àll bii centre régional de contrôle des fréquences moom la ñëwoon teg pose première pierre bi maa ngi ñëw ci yeneen comme dañuy tibb tànk ñu ngi topp ci ginnaaw